أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñoo ngi àndaat ak yéen ci téere yàlla bi tabaraka wa taala tollu ba tey ci assuura ala imran li jël tey benn aaya rek ci kàttanu buur bi tabaraka wa taala muy aaye 75 borom bi subhanahu wa taala mu ngi jàngal ci aaye bi ne ñun jullit ñëpp war na noo ànd yeewu balaa yahuud yi ak nasaraan yi dinu wor mu ne yajibu an laa yuxtarra bil yahud wala yuuthaqu fihim limaza lima urifu bihi min xiyaanatihim mbokk yi jullit yi fi nu toll tey war na noo yeewu bu baax balaa yahud yi di nu wor di ñu sànk di nu alag lu ko waral mooy ñun ñépp ànd nañu xam ci ñoom ay workat lañ lu nu wax ak yow duñ ko respecté looloo tax ab jullit warul am confiance ci ab yahud waroo am ci ñoom kóolute ndax seeni mbir yépp ay waraate la loolu dañ koy jàng tey ci aaya bi sunu borom subhanahu wa taala di jàngal ci saar bi ñaareel bi mooy man kadaba ala allah ahra bihi an yakziba ala nas képp ku fenal yàlla est-ce que kooku nit dina dina tuuti ci moom su fekkee waa ji dafa fenal yàlla subhanahu wa taala yàlla mi borom jaam ñi yàlla mi mooy borom mbindeef yi yàlla mi moom adduna bi sàkk ko mu fenal yàlla moomu kon yow est-ce que di nga ko jaaxal kon kuy fenal yàlla masamaag mbindeef dafa am benn borom xam-xam bu mag bu doon jàng hadis. ñu tegtal ko ne ko demal bërëbu sàngam kiy jàngale hadis dëkk boobu la nekk mu war war waayam dugg ci àll yi ba yegg ca dëkk ba mu ñëw fekk boroom xam-xam boobu xaram rëcc mu bëgg a jàpp xar mi mu yor leket leket gi amul dara mu naan xar mi bar di nax xar mi pour xar mi ñëw sëgg ci leket gi mu jàpp ki mu doon jàngal daal di dëpp nit ñi nag ñu ne ko eh kooku la sëriñ bi kooku kooku la kooku mooy jàngale mu ne man kii duma jàngal ñu ne ko lu tax mu ne kuy fen ay xar di nga fen ay nit waaw kuy fen ay mala bis dina la jàpp nga fen ay nit yahud yi seen melokaan mooy kuy fenal yàlla di ko waxal lu amul kooku sikk nekku ci ne fekkee ay mbindeef nga amal foog nga fen leen lii lépp yàlla daf ñu koy wax pour ñun jullit ñi ñu yeewu ci yahud yi ñetteel mooy bayaanu itiqaadul yahud yàlla daf ñuy leeral pas-pasu yahud yi lan mooy seen pas-pas bokk na ci seen pas-pas ann al bashariya gayra al yahud najas ñu ne kudul yahud rek da ngaa sobe kudul yahud sobe nga ak koo mën a doon yow da ngaa sobe wa ann amwaluhum wa aaraduhum mubaha lil yahud ñu ne alalu ñooñu nga xam ne ay sobe lañ ak seen der dagan na ci yahud yi bu leen neexee ñu rey leen jël seeni alal leen neex ñu def ndax ku dul yahud yow doo nit doo dara xalaalun lahum seen alal dagan na ci yahud yi ñu jël ko seen deret ak seen der dagan na li anna lahum humul muminuuna fi nazarihim ñu ne ñoom ñoom dong ñoom ñoo gëm kenn gëmul yàlla ku dul ñoom wa gayruhum kaafir ñu ne kudul ñoom yéeféer nga ñoom dong ñoo normal ñoom dong ñooy ñi gëm kon ñoom lu leen neex def kon doomu ndey yi mbokk jullit yi ci gàttal ñetti tomb boobu yooyu nekk sunu kanam loolu la aaya alxuraan bi di ñu jàngal ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ci ñun dégg ak topp أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يعديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يعديه إليك إلا ما دمت عليه قائماً ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون sunu borom subhanahu wa taala nee na wa min ahlil kitaabi am na lenn ci ñooñu téere waxoon nañ semaine bële passé min boobu jàng ngeen wadda taifa min ahlil kitaab jàng ngeen wa qaala taifatun min ahlil kitaab yooyu ñooy yee passé borom bi nee na am na lenn ci ñooñu téere mooy yahud ak nasaraan saa yoo déggee ñooñu téere rek mooy ñooñu naan les gens du livre mooy ñi nga xam ne yàlla wàcce na ci ñoom ay téere yàlla jot na leen jox ay yonent yonent yooyu yàlla wàcce ci ñoom ay téere Muusa ak Isa ñooñ ñooy ahlul kitaab ñoom ñooy yahud ak nasaraan gis ngeen sunu borom subhanahu wa taala ndeysaan buur bu maandu la buur bu baax la buur bu dul sakk jëf buur boo xam ne loo def moo xam da ngaa baax moo xam da ngaa bon même soo bonee boo defee lu baax yàlla dina la ko nangul mu ne kii kat bon na de waaye tey lim def baax na donte ne ku bon nga xam nga ñun suñu jikko mooy ku baax su defee lu bon tamit daa baax ku bon su defee lu baax it ku bon la ñun loolu mooy suñu jikko da ngay gis kenn mu def lu baax wala nga xame ko lu baax bis ñëw mu def lu bon ñu ne mo kii nii la mel yéen a xamul woon rek ñu seedeel ko lu dul jikkoom xoolal fii ahlul kitaab li ñuy kàccoore kàccoore li ñuy bon bon bon bon bon yàlla ne am na ci ñoom ñoo xam ne dañoo baax pourtant loolu la ñu sant xatta ñun ñii yàlla mu ne ñu ahlul kitaab yi bu ngeen di discuter ak ñoom sax na ngeen wax lu rafet wala tujaadil wala tujaadilu ahlal kitaab illa billati hiya ahsan yàlla wax ñu ne encore ne ci ahlul kitaab wala yajrimannakum sanaanu qawmin ala alla taadilu bañ ay nit bu mu tax ngeen maandu bañ ay nit yow nekk ni ñun ci ñun am na ñun ñoo xam dañ leen bañ du nu maandu ci seen dara même bu ñu defee lu baax sax ñooñu ñu bon lan loolu du diine diine mooy waa ji soo ko xamalee mbaax soo ko xamalee mbaax seedeel ko mbaax su defee lu bon nga jéggal ko ñaanal ko yàlla njub soo ko xamalee mbon seedeel ko mbon su defee lu baax nga nangul ko ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa yéegi-yéegi benn néew romb ko gaa yi wax ci néew bi mu ne wajabat wajabat wajabat parewul ci kàddu beneen néew romb gaa yi wax ci moom safaan ah mu ne wajabat wajabat wajabat ñu ne waaw yow yonent sa ñaari wajabat yi moom lan la mu ne ku njëkk ki lan ngeen wax ci moom ñu ne lu baax mu ne ah kon loolu dëggu na ci moom dem na aljanna ku mujj ki lu ngeen wax ci moom ñu ne safaan mu ne dëggu na loolu yàlla def na ko kon doomu aadama loo bañ bañ bañ bañ ay nit loo am ak ñoom problème loo loo loo loo loo loo bul yëpp bul gas yëpp def ci pax bul gas yëpp def ci pax waaw kii ku baax la waaye tey tarxiis na kii kat wax dëgg yàlla xamewuñ ko lu baax waaye tey def na lu baax loolu mooy jikko ju baax sunu borom nee na wa min ahlil kitaabi am na ci ñooñu téere yahud ak nasaraan man koo xam ne in taamanhu sun ko wóoloo itaminhu ala kaza buñ ko wóoloo ci dara moo xam ndénkaane la ak lu mu mën a doon loolu ñu ko wóolu wala loolu ñu ko jox wala ndénkaane googu suñ ko soxlaa dina ko joxewaat man koo xam ne in taamanhu boo ko wóoloo bi qintaar waznun maaruf wal muraadu huna annahu min zahab bi dalil ad dinar alal ju ne gàññ suñ jëloon ay conteneur yi alal ñu dénk ko waa ji tey jii lañ ko ko jox ñu bàyyi ba fajar ñu fëgg ko ñu ne ko ana lañ la joxoon ci timis mu ne mi ngi nii du wax mukk ah dafa amoon ko amoon soxla daal fii jaar ma yaakaar ne yéen soxlaagu leen ko léegi ma abal ko ci nga loolu la gaa yi def ak bëri doomu aadama yoo xam ne boo leen dénkee boo wiiree koñ nga ñëwaat da nga leen di jox jaar ci bunt bi wiiri koñ ñëwaat nga ni ana li ma fi bàyyi woon léegi-léegi ñu ne la ah waxoo ma woon dat bi da nga ne ma woon rek dencal ma loolu du jikko ju baax ndeysaan am na benn waay boo xam ne benn waay da doon tukki daal di ñëw ba ci moom ne ko sama alal ji laa bëgg nga dencal ma ko sama xaalis bi mu ne amul benn problème daal di denc waa ji dem ñëwaat mu ne ko xam nga ma mu ne xaw ma la de yow yaay kan mu ne ah man maay sa dëkkandoo bi maa la dénkoon mu ne yow ah wax nga dëgg waaw waaw waaw yow la kay yaa ma dénkoon mu ne ana xaalis mu ne ko jinax yi lekk nañ ko ah mu ne waaw jinax yi lekk nañ ko jinax yi dañoo ko lekk fii laa ko den dencoon ci keesu weñ gi jinax yi ñeef keesu weñ gi ñeef xaalis bi mu ne ko xaalis bi du woon ay kayit ay weñ loon mu ne ko waa jinax yoo ko lekk yëpp dañ koo ñeeñ ba mu jeex ah waa ji xam ne waa ji am na lu mu def ci xaalisam bi mu dem mbokk buur buur convoqué waa ji ñu ne ko ana xaalis bi mu ne jinax yee ko lekk buur bi daal di xam ne waa ji saay-saay la mu ne ko mu ne mu ne mu ne mu ne leen dem leen mu woo ki ko dénkoon xaalis mu ne ko xam nga nooy def da ngay bàyyi ba doomam génn nga kidnappé ko nga jàpp ko denc ko waaw d'accord waaye daa toog ay fan doomu dëkkandoo bi génn rek mu jàpp dem denc ko ah mu yëg ne waa ji moo jàpp doomam moo ko denc mu ñëw ci moom ne ko ana sama doom mu ne ko gisuma ko mu ne ko dinaa la yóbbu ci buur bi de ah bismillah yóbbu ma mu yóbbu ko buur bi daal di woo waa ji mu ne ko ana doomu waa ji mu ne ko picc yi ñoo ko cof yóbbu ko waaj ne ko ki ki lekkoon xaalis bi ne ah foo mës a gisee picc yi ko xale mu ne ko foo mës a gisee jinax yu lekk weñ mu ne ko waa kañ dem ma jox la sa xaalis mu ne ko kañ dem ma jox la sa doom loolay wóor xam nga doomu aadama yi daf ci am ñoo xam ne dañoo wóoriti am na ci koo xam ne dañ ko dénk xaalis waa ji tukki ñëwaat ne ko ana sama xaalis mu ne gisuma ko ñu waat waat mu ne gisuma ko waa ji yóbbu ko ci àttekat bi àttekat bi ne ko yaa ana xaalis bi mu ne wóor na yàlla kii xaw ma ko waxuma laa dénk na ma de mais kii dama koo xamul buur bi toog ba jaag daal ne ko waaye léegi xam nga nu ñuy def mu ne ko àndal ak kii comme moom nee na ci jàkka sàngam la la la dénke woon ci jàkka da ngeen julli ba pare mu ne la toogal nga toog mu compté xaalis bi jox la léegi àndal ma ak kii mu xoolal ma jàkka jooju fan la nekk àndal ak kii waaw ñu dem maanaam kii leb la xaalis bi ki leb la xaalis bi la wax àndal ak kii nga won ko jàkk ji nga ko dénke woon mu ne kiñ la kiñ dénkoon xaalis bi toogal fi yow kiñ dénkoon xaalis bi toog ña la dem lu yàgg yàgg yàgg ñëwuñ buur buur bi toog ba caagri mu ne waaye ñi yàgg nañ de mu ne jàkka ji dafa sori mu ne ko fayal fayal fayal donc ndeke joxoon nañ la xaalis fayal moo yey boppam maa gis nga nit ñi ni ñu mel nit ñi dañoo saay saay njublan trian surtout nag jamono tey surtout jamono tey nit ñi dañoo jubul waaye xoolal ñi ahlul kitaab li ñuy yées yées yées borom bi subhanahu wa taala maandu teem ndeysaan mu ngi leen di seedeel ne am na ci ñoom ñoo xam ne man koo xam ne in taamanhu bi qintaar boo ko joxoon lu kenn xamul lu ne gàññ al qintaar mooy lu ne gàññ alal ju bari or wala wurus nga ko jox yu addihi ilayka dala koy delloo allahu akbar kon am na ci ñoom ñu baax am na ci ñoom nag safaan waaw xeet woo dem léeg-léeg di nga fa fekk ñu baax léeg-léeg nga fekk fa safaan dama am benn xarit bu aji woon ndeysaan ci aj bi moom moo yor sur internet bi al afia ndeysaan yàlla na ko yàlla fay dafa aji woon ànd ak soxnaam démb ci guddi la ñoom woo ma tey ci fajar mu ne ma oustaz dama waaru jabar ji sax moom ko wax moom jabar bi moom boo ko nuyee ba pare rek jabar ji la ma bàyyeel jabar ji ne ma damaa waaru ma ne ko lu xew mu ne ma ñun daal suñuy bagage dañ teg ci wetu xaram bi ci biir kaaba gi ci xaram bi ñu sàccu waaw ci biir kaaba gi ci xaram ci kaaba gi ci biir xam ma ne ko waaw xam nga léegi li dal jullit yi mooy def mbir yi mazahir bàyyi li li mbir yi waroon jur rafetal yére yi rafetal yaram yi peñe sikkim yi defar tube yi defar kaala yi fekk xol yi baaxuñ loolu mooy sunu problème loolu mooy sunu problème dañuy defar ci biti bàyyi ci biir te ci biir su baaxul dara du baax ci biir moo war a baax loolu tax yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum qulubikum wa amalikum yonent bi nee na yàlla du xool yëre yi du xool melokaan yi ci biti yàlla lan lay xool mooy xol bi ak jëf ji xol bi ak jëf xoola ki dem ba ci kaaba gi di sàcc ba pare ñibbisi ñibbisi nag moo xam fu mu dëkk ñu reyal la ay nag nga takk sa bu fekkee ne ku góor la mu takk xaw ma lan ngeen koy tuddee gitara boobu mu kaale gi ñu naan ñu naan ñaanal mu naan fekk fi mu toog mu ngeeg portable jàmbur fi mu toog mu ngeeg portable jàmbur ñu ñu ne ñu ne ko ñaanal muy ñaan wala mu ngi takk ay weeru jàmbur wala mu ngi takk montre jàmbur wala mu ngi sol daal jàmbur wala mu ngi sol yére jàmbur wala poos bi fi mu toog mu ngi xaalisu jàmbur boo ko xam ne dafa leen da koo sàcc mu ne day ñaan lu muy ñaan loolu moo tax gars yi nee nañ muus bi mu aji jee màkk ñibbisi ñëpp di ko ziar jinax ñëw ne papa de muus ñëw ne de ñu ngi koy ñëpp a ngi koy ziar dama ko bëgg ziar mu ne ah bul dem lu tax mi ngi waaraate mu ngi kii daf àllaa ji màkk ñëpp a ngi ñëw wër ko mu ne bul dem bàyyi ma dem rek mu ne waa léegi xam nga nooy def balaa ngay dem da ngay gas benn pax fii ci sunu saal bi nga jaar ci suuf ba nga yegg saalam nga toog nga toog ci wetu pax bi nag boo gisee loo xamul rek nga nga pëttax lu ñëw waaw mu ne ñëw ba ci muus mu ne ko man damaa ñëw ziar si la dégg naa dangaa demoon màkk mu ne waaw mu ne imaam màkk lu mu wax imaam màkk mu war ni war nañu ragal yàlla war nañu ragal yàlla war nañu soppeeku war nañu war nañu mu ne imaam nee na am na ñoo xam ne ñu ne ci biir néegi rek di yàq bagage suñu dañ leen war a rey ah mu ne ko waaw ñii saa ci jën yi nag yow mën nga bëgg a wax mu song rek jëna plongé ci pax bi ñibbi ne papa wax nga dëgg de papaam ne ko xanaa xamoo añ màkk mbubb lay changé waaye du changé jikko añ màkk dina changé yére bi de boo ñëwee changé yére bi solal la yére bu weex bi nga takk sa sol sa kaala ñu tegal la affaire bi bu dee jigéen la kazalika nit ñi ñëw ñetti fan ana àllaaji dem na stade ana àllaaji mu ngi soraano changé nga waaye yére bi changé na xam nga aji maaka ba pare ñëw dem soraano wala nga dellu stade ana àllaaji mu ngi mu ngi mu ngi fee ci damier bi ana àllaaji mu ngi fee di bolot léeg-léeg àllaaji nga seen ko muy tux anan yàlla musa anan yàlla soppi anan yàlla won dëgg mu wërsëgal ñu topp anan yàlla won neen mu wërsëgal ñu sori ko borom bi nee na wa minhum am na ci ñoom nag ñoo xam ne ba léegi fan nekkoon lañ nekk ay kàccoor lañ man koo xam ne inta man hu boo ko wóoloo bi diinaar benn dërëm kële lan la woon tintoor mooy alal ju bëri kii diinaar dërëm yàlla nee na laa yu addi ilayka du la ko jox mukk illaa lu dul maa dumta alayhi qaiman lu dul nga taxaw ci moom guddi ak bëccëg téléphone kar kar maa ngi sa buntu kër di ko fëgg fajar taxaw rek dakk dërëm nga ko jox dërëm mais du la ko delloo dërëm xoolal jikko yahud yi yàlla di xase yahud yi tey julli di ñoo ko yor waaw di nga gis julli boo xam ne dafa jël alalu jàmbur yi ba ñemewul dem jàkk ñemeetul liggéey ñemeetul génn te li gën a dangereux ci jullitu tey dañoo am confiance ci bor bor da ngay gis koo xam ne dëkk bi yëpp raatale na ko ñëpp la yoreel te yëgalu ko yaramam te yonent alayhi salaatu wasalaam daawul jullee ku am bor bu nit faatu woon ñu indi ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi danaan ah bi mu amee alal moom yonent bi bu laajtee ñu ne ko am na bor mu ne maa koy fay wala sahaaba yi kenn ne maa koy fay yonent bi jullee ko su ñëwee moom yonent bi alayhi salaatu salaam ci benn néew mu ne am na bor ñu ne waaw mu ne ku koy fay ñëpp ne noppi mu jël ay dàllam ñibbi borom xam-xam yi nee na bor masaqatun bil leyli wa hammun bin nahar su guddee dalay tere nelaw bu bëccëgee mu nekk ay problème borom bor bu ñu ko dugalee ci bàmmeel dañ koy seene ba mu ne ngoj xoolal ñun niñ ci wóoloo waxuma la dërëm waxuma la ñaar dërëm waaye ay junni ay ay ay ay ay da ngay gis koo xam ne lu mu lu mu gis jël ko kuy jaay war nga sax mu ne la jox ma naan te def ci yéeneem du ma ah ay naan rek mbokk mi ku baax la du ma wax du ma yóbbu police du ma fayee ko loolu baaxul loolu loolu baaxul alalu jàmbur lu mu tuuti tuuti même bu dee fistin su la ko jéggalulee am nga problème am nga problème alalu jàmbur loo mu tuuti tuuti mooy tundikul su fekkente ne xam nga wóolu woo sa bopp bul dencal kenn alalam ku ñëw ne ko mukk mukk mukk mukk denc ma ku la dénk ne ko jëlal bul leb ndax seytaane dalay piéger da ngay gis lay ku am problème xam nga ku xëy amul dépasse benn waaye ñëw dénk la 5000 te yow fanaanoo dépasse looy wax yàlla indi na xéwal kaay xam naa fii balaa weer bi dee waa ji di ko soxla di nga dem yóbbu ko marché nga ñëw waa ji wiiri koñ nii man de wax dëgg yàlla dama ne woon sax ba weer bi dee mais damaa dem kër ba rek kër ga rek fekk sama doom feebar dem ko war yóbbu hôpital ana say nga naan ah ah hihi nga problème ñëw na léegi nag waa ji la dëgg la ko fa indi woon nga jëm ak moom weer bu dee fu muy mujj boo ñëwee ci jàkka ji di li xam sax mu naan waaye kii xaw ma lu muy li xam kii fekk yow meloo noonu sax mais gis nga seytaane lay dugal bu dee imam la sax man seen imam bi ngandum trian la maa ngi ko dénk mu dem lekk gis nga bu doon sëriñu daara bi fekk problème am na gis nga moo tax ku ñëw dina la ay ne ko mukk mukk yóbbul bu dee mbooloo la bul denc seen xaalis wuurul bu dee ku mu mën a doon bul dencal kenn waaw est-ce que waa ji wóolul boppam wóolul waa këram denc ko ba pare mu yow mu bëgg ñaa ñëw dugg laa dugal bis boo ko lekkee mu wëre la dëkk bi boo ko tëxee fay nag tës la la jëme waaw nga am problème nag ñu yóbbu la ci rajo yi di la wax bind la ci journaux yi wala wax sa tur sa diine yàqu ñëpp gis la sikk la fekk xëy na sax meloo noonu benn nit boobu dong tey nga ko mu sa def mais seytaane moo lay nax kon yàlla subhanahu wa taala wax na nu lu leer nee na am na ci ahlul kitaab ñoo xam ne dañoo wóor waaye am na ci ñoom ñoo xam ne dañoo wóoradi wóoruñu ñee dañoo wóor ba boo leen dénkee alal ju ne gàññi ñu delloo la ñii dañoo wóoradi ba boo leen joxee fistin duñ la ko delloo wala buñ la koy delloo di nga baagante baagante baagante ba bu fekkoon ne dërëm la dépassé nga téeméer pour nga jot ci parce que bis bu ne nga woote téléphone jënd crédit woot waaw yow foo foo toll na la waa sëñ bi mu ñal ma rek suba nga dugg oto ñëw ñaata la woon dërëm léegi woote nga téléphone jënd nga crédit suba dugg nga oto yaa ngi xuloo yaa ngi xeex balaa mu lay fay téeméer bi nga financé ñetti téeméer am na ci ñoo xam ne noonu lañ mel illa ma dumta lu dul nga sax dakk alayhi ci moom qaima taxaw mu doog la koy jox yenn saa yi sax nga dem ba indil ko këyit mu xam ne tey jii bu fal day dugg kaso mu doog a indi indi indi xaalis bi lu tax loolu yahud ahlul kitaab mel noonu sunu borom subhanahu wa taala du la du taqal kenn lu mu wax ne noonu nga mel rek noonu nga mel nee na ñii zalika bi annahum qaalu laysa alayna fi l ummiyina sabil zalika naka noonu bi annahum ñoom ñii ahlul kitab qaalu wax nañ ne gëm nañ ne ci seen pas-pas daf cee bokk ñu ne laysa alayna fi l ummiyina sabil ignorant yi ignorant ñi dul ahlul kitab ñi dul yahud waaye yow ñooñu loo leen def baax na dégg naa masala bu mel nii ay mbokk de ay mbokk de naan kurul sunnit boo lekkee alalam dagan na jaru nga koy fay moo tax ñoom bu ñu lewee duñ fay maanaam ku pas-pasam wérul ñu ne ku amul aqidatu salaf boo ko lekkee alalam perte na lée- wallahi dégg naa masala bi dégg naa ko man ñu ne ku amul aqidatu salaf boo lekk alalam perte na inna lillahi moo tax ñuy leb duñ fay xanaa dañu dañu dañu dañu réer rek réer moo gën a bon ci àdduna te nag nga réer ba pare dafa ne da ngaa xam moo gën a bon wala réer ba pare di xam-xam lu xanaa xamuloo ne ab yahud wala am nasaraan ku dul jullit laa waxuma sax kuy jullit ku dul jullit fistinam boo ko lekkee doo jéggi siraat te dul nga fay ko fistinam waxuma laak nag kuy rëpp jëm bi ci suuf nga lekk ak xam xanaa déggu leen ñu ne yonente bi alei saa salaam gis na benn dex boo xam ne ñii lekk ak yi ñoo ciy fay benn waaye ngi toog ci kaw dex gi kenn ngi nii di fay ci dexu deret gi saa yu féyee ba bëgg a fekk génn tefes dina fi fekk koo xamante ne day jël lu mel ne birig ñoox ko ci gémmiñ gi waa ji delluwaat ba ci digg dex ga jibril yonente bi mu laajee jibril kii kan la mu ne ko kii moo doon lekk aqu nit ñi ci àdduna aqu nit ñi aqu nit ñi est-ce que aqu nit ñi ci xaalis rek la yem allahu akbar xoolal tey dëkk bi nag ñi yore ay àq ni mu toll ñi yorel nit ñi ay àq la ilaha illallah jàpp nañ ne àq rek mooy ku ñëw rek ne la lebal ma ku ñëw ne la gii lii fekk dafa sew yaatu na nit ñi waroo leen yoral ay àq bi soo leen yorel ay àq nga dem moom àllaaxira di nga réccu àq nit ñi yàlla mënu la koo baal nit ñi rek ñoo la koy baal te léeg-léeg ngay tooñ sa mbokk moo xam ne xamoo ne yaa ngi koy tooñ ci lu nekk nag loolu moo tax ab jullit war a moytandiku kem talaayal kàttanam lu mën ci bañ a lor ay mbokk jullitam mbokk yi lan moo tax ahlul kitaab ñenn ci ñoom buñ jëlee alal ni duñ ko delloo ndax dañu ne ñooñu duñu tus yàlla moo nu ko nettali mu ngi nii laysa alayna fil umiyina sabil képp koo xam ne doo yahud yow ignorant nga képp kuy ignorant lekk sa alal dagan na na képp ku bokkaluk ñoom pas-pas lekk sa alal wala def leen lu la neex loolu du tus ci ñoom li pas-pas la boo xam ne tey lenn ci ay jullit pëtëxu nañ ci lu tax parce que yahudi ak nasaraan yi ñoo leen di yar ñoo leen jàngal moo tax ñu gëmloo leen pas-pas yi te moytu ko lu war la yemuñ ci loolu sax ñoom yahud ak nasaraan yàlla mu ne wa yaquluuna dañuy wax alallahi ci yàlla alkadiba ay fen dégg nga de xam nga lu tax ñu lekk alal nit ñi ah ñu ne ñun yàlla moo nu ko daganalal kun lekk sa alal ñàkk nga da ngay dégg fii fii fii billahi wallahi wa taala da ngay dégg ñu ne ñun kun lekk sa alal perte nga man bu ma lekkee sa alal da ngay perte de waaw yowmal xiyaam ngay xaar pour ma fay la du ma la fay parce que yowmal xiyaam diw lay àndal mu dugal ma àjjana waaw man ku ma lekk sa alal perte nga loolu moo tax xoolal Sénégal yoon boo jaar pour am xaalis dagan na dangay gis koo xam ne li ko may alal mooy fii la toog rek lu ñu sàcc bu ñu indee mu jënd waaw am na ñoo xam ne sax dañ naan sama magasin bi lu fi dugg borom ñàkk na ko loolu ban pas-pas la loolu ban diine la ab jullit day lekk lu lew ah kulu min at-tayyibaat la yàlla wax yàlla ne bàyyi leen lu xaraam inna alladina yaakuluuna riba du loolu la yàlla wax ñii lekk riba yàlla mu ne yowmal xiyaam bu ñuy jóg dañuy jóg di daanu yàlla mu ne innama yaakuluuna fi butunihim naar safara la nii lekk kuy lekk safara foo jëm ab jullit day moytandiku lu bon moytandiku lu araam tey li tax umma bi am xeet yu am problème mooy li ñuy lekk dafa doy waar moo tax kenn du yàlla du nangu suñu ñaan waaye xam ngeen ne ni ñuy jullee ni ñuy wooree ni ñuy jéemee sellal te yàlla du nu nangul nan seetaat suñu bopp nan seetaat suñu bopp xoole ni ñuy jullee ñëpp a ngi julli ñu ngi ñaan ñu ngi sujjóot ñu ngi ñu ngi ñu ngi te dañuy ñaan ba sonn dara du dem te yonent bi waxoon na Saad ibnu Abi Waqaas soo bëggee yàlla nangul la rek at immat amaka li ngay lekk na dagan li ngay lekk wallahi bu daganee boo ñaanee yàlla yàlla may la soo ñaanee yàlla amoo bul critiquer yàlla xoolaatal sa bopp xoolal ndax li nga lekk dagan na benn borom xam-xam nee na boo yónnee sa doom mu bañ sax mu ne bul ko dóor de xoolal sa bopp xoolal lan nga def yàlla keneen ki ne boo jéemee war sa fas fas bi bañ mu ne bul caw fas bi xoolaatal sa bopp sa digganteeg sa borom soo amee loo am problème ak nit ñi sa soxna sa doom sa waa kër sa sa sa xoolaatal sa bopp yow lan nga def yàlla ba yàlla fay la lii tey est-ce que déggal nga yàlla comme ni nga bëggee ñuy déggal la xoola ci ñun fii rek ne ku ku ku ku wàcc ku julli woon ngay léegi dem sa kër nga ne sa soxna an sa reer an sama reer mu ne demal ci waañ bi nga indi ko wala mu ne la mu ngi noonu de booyalal fourneau bi tàngal ko looy wax lan nga wax mu ne la tàngalal ko sa bopp looy wax ah waaw yàlla mu ngi la wax defal li nga lànk boo waxee sa doom dama nga jëndal ma lii mu bañ looy wax nga bëgg a kugil adduna bi boo ko waxee sa jabar mu lànk ki nga yilif patron yaay patron ki ngay liggéeyloo boo ko nee defal mu bañ nga te yow yàlla mu ngi la wax defal nga lañ sa Alioune Sall nee na yaa ngi takk montre bi montre bi ñàkk heure nga naan sama montre bi normalul te yow normalul yow normaloo nga ne montre bi normalul yeneen yàlla jubal bokk jullit yi yàlla mu ne wa yaquluna ñu ngi wax alallahi ci yàlla alkaziba ay fen waaw ban fen moo gën a rëy fenal yàlla ku fenal yàlla foo jëm yonent bi rek boo ko fenalee sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na soo ma fenalee bu yeboo booy dem safara nga yóbbaale ban man kadaba alayya falyatabawwa maqaduhu min annar hadis boo xam nga lu muy tekki ndeysaan yal na yàlla fay ustaas bi ñu ko doon jàngalal alfalah lu muy firil hadis ula idaadi ci tukulóor la nag mu ne sa fin sa finni allah so allah haali awi wona goonga a finni allah saɗa yaha jaygol nawɗo jooɗoɗa nawɗo jooɗiɗa nawɗo jooɗiɗa ñu ne ko ko tagi mu ne kala ɗo jahata mbiyeɗa nawɗo jooɗiɗa siftu si, firti ko ka ɓoyowo toon walla deygulen wax ɓe noon la de jumna noon la de a pulaar bi jumna de fépp foy dem nga tàggu nit ñi ne maa ngi dem place sàngam ñu ne la yóbbaaleel ban yóbbaaleel ban loolu muy tekki mooy fa nga jëm da nga faa nar a yàgg moo tax ñu ne la yóbbaaleel ban ndax boo sonnee taxawaay yonent bi nee na ku ma fenal safara nga jëm bu yeboo nga yóbbaale ban mooy lan mooy da ngaa nar a yàgg safara kon yóbbaaleel ban waaye ku yóbbaale safara nga yóbbaale fa ban ndax toogaay boobu dina la jëriñ la ilaha illallah wala yoon ma fal yatabawwa maqaduhu min annar bu yeboore mu xam ne am na benn place bu muy toog ci safara boo ma fenalee man yonent léegi nag boo fenalee yàlla nag su fekkee boo fenalee yonent bi safara nga jëm nga fenal yàlla xoolal tey Sénégal fenal yàlla nu mu yombee fenal yàlla ak a yomb Sénégal am na ñoo xam ne seeni projet ci fenal yàlla lañ ko lañ leen ko financé waaw billaahi wallahi taala am ñoo xam ne lépp ci la ñuy xëy di gont te du dara ci ñoom noonu ragal yàlla fen ni mu xaraamee diggante nit ak nit diggante jullit ak mbokk jullitam diggante waaye waxuma la diggan diggante nit ak yonent waaye nag diggante nit ak boroomam ngay fenal yàlla waaw yan loonu yàlla suturaal ixwatal iman yàlla nee na ñii lu tax ñu am fit bay def li ñu def ku leen dénk duñ ko respecté ah mooy dañu ne ku dul yahud baaxoo waaye pas-pas bi leen gën a poussé ci loolu mooy wa yaquluuna ala allahi alkaziba dañuy fenal yàlla te wahum ñoom yaalamuuna xam nañ ne dañuy fen waaw wahum yaalamuun xam nga am na ñoo xam ne sax dañuy fen waaye xamuñu ne ñoom ñi ngi fen parce que lu tax parce que dañoo jàng rek dañoo liir ay fen ba ñu liiree ay fen wala ñu jàng ay fen ñu defe ne fen yooyu dëgg la ñu ñëw di argumenter di défendre fen yooyu xam nga ñooñu dañu yaakaar ne ci dëgg la nekk waaye ñii ñoom dañuy fen ba pare te xam nañ ne ah maa ngi maa ngi fenati de ah waaye garaawul amul problème maa daama ne moom dinaa ci am dara rek garaawul gis nga de te leer na ko ne mi ngi fen waaw léeg-léeg nga di kenn allo mu ne woy foo nekk non maa ngi nii biir Dakar te mu ngi nii Géejawaay toog su ko defee gees xool nit ñi garaawul garaawul ah loolu mooy xam nga ne da ngay fen wala loolu lu ñaata lañ ñu koy def ñuy ñun ndeysaan oustaz mam mbañik yàlla na ko yàlla yërëm sunu oustaz bi doon jàngale fii dimanche dafa faat nee na benn bis dafa nekk ci oto jóge dëkk bay ñëw benn jigéen de portable am sonné ci biir oto bi kar foo nekk mu ne maa ngi nii mbuur te mu ngi ci yoon bi di ñëw Dakar ba pare naan ni oto bi xam nga loolu yenn saa yi nga gis ku sangu ba pare di solee foo nekk maa ngi nii léegi ma yegsi te yow yaa ngi biir kër gi di sol yére ñun ñëpp dañ koy def ay fen la te wa anta taalamu annaka takzib yow xam nga ne da ngay fen gis nga yu sew yooyu suñ ko moytuwul loolu mooy ñuy dugal safara ba pare looy jàngal sa waa kër yaa ngi ci biir salle bi toog wala yaa ngi préparé génn goo wala yow yaa ngi nii ci jë jëlagoo oto nga naan léegi ma yegg si xam naa dans dans cinq minutes waaw maa ngi nii ci autoroute bi te yow yow yow jëlagoo oto loolu loolu nañ ko moytandiku fen ba pare tey yow xam nga ne da ngay fen wahum yaalamuun wala nit ñëw ci yow nga ne ko dama ba suba nga ñëw mais loolu yëpp lu lan moo la ci intéressé mooy na fi waa ji jógee rek suba boo ñëwee ma jox la ban heure non heure boo ñëw baax na waa ji xëy ñëw nga ah digga li ma yaakaaroon jotuma ci te ba muy dem yow xam nga ne ay pexe fen nga lal te xam nga ne da ngay fen parce que mën ngaa nax nit ñi mais yow sa bopp xam nga yow xam nga sa bopp balil insaanu ala nafsi xam nga ne bi ngay wax am nga loolal naroo koo def kon waxal mënuma ko waxal fekkoo ko fi xaaral ba beneen yoon wala ñëwaat fi looloo gën moo tax di gaaw di wax wóorul del def ndànk yooyu moo ñu indil problème tey mbokk jullit yi sunu borom subhanahu wa taala nee na ñii lan moo leen alak mooy ay fen te ñoom xam na ne dañuy fen fen lu ci lislaam wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na soo waxee sa doom demal nga ñëw ma jox la mu dem ñëw joxoo ko yonent bi ne yow fenkan nga yonent bi dañ ko laaj ndax jullit dina nay mu ne waaw dina nay de ndax jullit dina nekk tàppet mu ne waaw waaw ñu ne yonent ndax jullit dina fen mu ne mukk jullit du fen qulil xaq walaw kaana murran qulil xaq wala wala nafsi waxal dëgg donte ne ci sa kaw la dal mais lan ngay gis tey bu dalee ci sa kaw nga défendre sa bopp bu dalee ci nit est ce que mus ngeen gis ñaari nit xuloo ñu ne bismillah ñoo leen kenn ki ñoo ne wax dëgg yàlla maa ko tooñ mus ngeen ko gis bëriwut de lu ngeen jote nga gis waa ji di reculer fen yi di ko tourner ni mu amee woon mu changé chaîne bi li mu waxoon yëpp mu tëb ko te instant bu muy def loolu moom xam leen day fen xool leen mbokk Yuusuf yi dañoo jël seen doom seen rak def ko lu leen neex dóor sànni ci teen ba pare jël yërëm taqal ci deret ñëw yàlla nee na ñu ñëw ngoon ba pare di jooy nag xoolal de def li ñu def ba pare di jooy yàlla nee na alaxala bi ñu ne tilli yoo ko lekk wala fen boobu ba pare yemuñ ci de waaye ñuy jooy pour lan pour loolu ñu bëggoon tu tuur lëndëm seen papa mbir mi dëggu waaye fan la mujj seen papa xool yére bi mu gis yére bi takk deret waaye amul ay bën bën parce que bukki ku mu lekk xanaa buy xamp yàpp bi dina xampaale yére bi mu gis yére bi dara xotteeku ci mu ne ah bukki bi moo bëri yërmande ñu ne waaw papa lu la nga waroon mu ne lekk yàpp te laaloo mbubb mi rek ñu ñu tiit ñu xoolanti ñu xam ne moo tax gis nga chaque jour enquêteur yooyu lañ leen di jàngal fenkat du tranquille mukk fenkat du tranquille ak sàcc defkat lu bon ku rey nit maanaam ku def lu bon doo normal fokk buñ lay laaj waa ji bu la nee jàkk xool la rek ci sa bët sa la sa tuñ yi sa gémmiñ gi langage bi geste yi rek dina xam ne yow da ngay fen te xoolal tubaab bi ni ñu xëy génne machine boo xam ne léegi dañ la koy takkal ñu ne la waxal boo waxee après ñu ne yow yaa mën a fen bu fekkee machine moo mën a génne ay fen machine est-ce que xam ngeen loolu am na xam ngeen ne am na machine nga wax ba pare machine bi ne la da ngay fen waaw su fekkee machine moo mën a génne feni nit te ana yàlla nag allahu akbar allahu akbar te xool leen mbokk yi fen li muy yàq ci àdduna benn waaye ndeysaan nan la ko yonent bi yaree mooy lu bon rek lay def mu ñëw ne yonent bi man daal damaa bëgg a nekk jullit yonent bi ne ko man de leen dong laa lay ñaan bàyyil fen fen mu ne fen rek ñu ne ko waaw bi mu léegi nii li li tas dëkk bi lan la lan moo tas àddina bi ay fen kese fen rek président yuy fen ministre yuy fen député yuy fen sëriñ yuy fen ustaas yuy fen nit ñi fen borom kër guy fen jabar jiy fen doom yi fen dëkk bi ñëpp di fen fu ñu jëm fan la jëm su fekkee yow ñëpp dañuy fen waaw ku nekk li ngay wax du dëgg journée bi mën nga cee toog nga ni waaw tey ñaata fen laa fen ngay compter mu mat cent ñun ñëpp bu ñu essayé woon nekk dëgg gis nga waa ji bi mu ñëwee yonente bi di ko yonente di ko dénk da ko ne dëggul kee ñëw mu ne ko bàyyil fen waa ji ne mën naa ko mu xëy suba comme dana naani sàngara mu xëy bëgg a naani mu ne ah man de dama ne woon yonente bi du ma fen man de def naa musiba nekk yonente bi daf maa piégé mu ne bu ma rombee fi ku ma ne foo jëm xam nga tey kooku di naani boo ko ne foo jëm daan maa ngi dem fi rek da ñëw day fen day naani ah mu ne te rus naa wax nit ñi maa ngi naani loolu moom rus naa koo wax noonu la waaye jaar bàyyi bàyyi naan dina jaar fii day naani ku ko ne foo jëm du ne maa ngi dem baar ba te bu naanee ñëw it bu ko yonent bi ne tax tey naan nga kan ci ñun fi mooy naan ba pare ñoo ñu ne ndax naan nga looy wax kuy kan mooy tox fi ba pare ñu ne la ndax tox nga looy wax kan ci ñun fi mooy dem def lu bon ba pare ñëw ñu ne la waaw est-ce que yaa ko def looy wax wallahi indil leen ma kaamil man ngay wax indil leen ma te di nga gis koo xam ne ñeme naa jàpp inna lillahi wa laa ilaha daan ne maa damay ñëw digal yal nañ yàlla musal au lieu nga ni maa ko def sax boog mu yàlla yërëm la ngir loolu ngir baal la xool leen ñett ñi nga xam ne yàlla moo leen wax ci Qur'an ñi bañoon dem jihaati ji ñu ñëw dëkk bi yëpp fen ñoo ñu wax dëgg ban sa ah man fàtte naa indi naa cadeau yi ban sahaaba ñooñu ñett sahaaba yooyu ñan la yooyu da ko ko wax am na benn mbokk bu indi ay parfum ah yor naa ay parfum de bii ci la bokk bii ci la bokk bii ci la bokk saxaaba yooyu de ñetti saxaaba la ñetti parfum ngi nii bismillah kaab am jox ko waaw kaab keneen ki kenn ki am na parfum ñeneen ñaar ñi bu ngeen xamul ma dencaat samay parfum lan moo sauvé kaab dafa wax dëgg waaw kaab lu tax nit ñi di xeexi xeexiwu ma yonent bi dara daluma man fi du ma fi nekk di fenante xaw ma ko seytaane rek ama jàpp ñeneen ñëpp fen ñii ñoo non aw ma sama jabar dafa feebaroon ñii sama buntu kër du tëju ñii fen xoolal aaya bi mu wàccee ñett ñooñu lañ baal ñeneen ñëpp yàlla bombardé leen ñett ñooñu waxoon dëgg li muy metti metti ci ñoom toog ci kanam yonent bi wax dëgg gi yàlla da leen a baal parce que seenu dëggu yonent bi pine na leen biir Médine ne bu kenn wax ak ñoom ba seeni jabar sax du ñu tëdd ak ñoom ci lan ñëpp ñëpp bàyyi leen kenn waxtul ak ñoom kaab yàlla moo ñu koy wax li suuf si suuf si di yaatu kaab nee na dafa mel na ci ñun deux mètres amuñ sax fu nu teg sunu tànk mi ngi nettali ne amoon naa benn doomu ndey xarit boo xam ne dàll bu ma sol lay sol su li yëre bu ma sol ñoo koy nuroo même kaala du lekk te lekku ma bi yonent bi ne bàyyi leen kaab bu kenn waxatee ak moom nee na maa dugg ci tool bi ne ko asalaamualeykum wa lo boo déggee asalaamualeykum loo war a wax delloo nuyoo farata la mu waat ci yàlla ne waa ji maa radda alayhi salaam nee na fayul fayu ma nuyoo ma ne ko diw mu ne ma xool ma mu ne wallahi gëm naa yàlla mu ne ko allahu wa rasuluhu aalam gëm naa yàlla de mu ne loolu de yàlla ak yonent bi la wóor wóoruma man wala ndax dégg ndigal yonent bi yonent bi ne ñett ñi bu kenn wax ak ñoom madina yëpp gàmbaar googaa yi ba seeni soxna sax bàyyi leen ñun fii buñ leen woon nan la bàyyi sa soxna naan nan dem moo dem ma toggal la ginaar nga reer ba suur mooy ni la dox nga song man bu la gaa yi bàyyee duñ la bàyyi kon sunu diine lii rek moo ci jafe-jafe ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu dimbali nu ñu sax ci imaan di sellal sunuy jëf ñu bañ a yor jikko yahuud yi mooy fenal yàlla ba pare te xam ne ay fenkat lañ kon lii mooy sunu dars tey ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangul ñu ko asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu Yeah.